seen jataay bi ñuy ànd ak yéen ca euh, fii ci télé bi nekk ci jumaa ji GMT euh, TV euh, Muxaddamatul Xidma di ko saytu ci sëñ di ànd ak liggéey bi sëñ Abdou Khadir ak mbooleem mbokki techniciens yëpp di ko jottali ab siyaare comme nuyoo mu tegal ñu ko ci sëñ xaaf yi ak mboolem ñi ñu daara ji ñëpp ak ñi ngi koy seqal ñëpp ci daara yi daarul maarif al islamiya ci njiit li sëriñ alhaaji Mbàkke Jaxate hafisahullah wa raha di ñaanit suñu kilifa gu mag gi ak mbooleem jëwrinam yëpp jëwrin ji nekk ci jumaa ji jëwrin yëpp suñu borom yàggal leen bi mu yàgg leen a jox ay ndigal ñu man yàgg koo mën a jafe eh, ñun nit ñu nekk ci ron ñooñu ñëpp muy sëriñ Mahamadou Muntaqa abisallaahu war wa raa tey nag ñu ngi eh, eh, kon war a dugg ci téere bi war a tàmbalee ci baabun fi axsaamin diin buntu ci xaaji diine yi fii la darsu bi war a tàmbalee mu ne axsaamu diini rabbina xaaji diine yi suñu boroom al imaanu ba ci njëkk mooy gëm wa ba dooxa ginnaaw ba al islaamu mooy lislaam wal ixsaanu ak ixsaan yooyu tudde rafetal mu ne xaaji diina yi nag eh, noonu ñu leen ko waxee téere bi eh, sëriñ bi mi ngi ko taalif ci addis boobu ñuy tuddee addisub sayyidina jibril borom xam-xam yi di ci tënk usulul fiq di ci tënk ci li ñuy tuddee eh, masail diini yi yi ñuy tuddee al al aslu fihi al manaa masaay li nga xam ne tawax tawaqqufiyee la war a doon yooyu yëpp mooy ñëw ci addis boobu ndax yonente bi moo wax ne jibrilun ataakum yuallimukum umuura diinikum man li ñuy tuddee ay mbiri diine nga xam ne moom la ñu tuddee aswaabit ad diiniya mooy li ñëw ci addis sayyidina jibril yooyu loolu nag euh, moom la sëriñ Tuubaa taalif yi ci téere bi muy ñetti mbir muy imaan ni ko sëriñ bi waxee ak islaam ak ihsaan imaan am na juróom benn xaaj li lay dem loo sukkuru benn bu ci nekk sëriñ bi dana ci ñëw leeral leen ko ba mu jeex eh, imaan dana leen ko leeral ak juróom benn xaaj imaan nag toujours ñu bàyyi xel ne eh, ci njàngaleem eh, moom lañu tuddee ilmul kalaam dañ koy natt ci xelum doomu aadama bi fi mu toll ngir ñu mën ko ci xam xamal lan mooy boroom boroomam li sëriñ bi tënk naan wax xayrullaahi lillaahi di mën a leer ci moom maanaam yàlla lu nekk yàllaa ko moom ñaareel ba muy lislaam ak juróomi xaajam it benn bu ci nekk da ngeen ko da ngeen ko fi gis sëriñ bi indi na ko ci li téere bi tuuti tuuti tuuti da ngeen ko ci gis ay farataam ak ay sunnaam dan eh, sëriñ bi indi ko ci téere bi ba mu jeex ihsaan mooy nga tàmbalee ko ci farata yi ba eh, ibaadaat yi nga xam ne dañoo nekk farata yëpp boo koy def nga cee am ak teewlu ba mel ne yaa ngi toog ak sa borom jàkkaarloog moom loolu it eh, tàmbalee ko ci farata yi nag doog ñëw ci sunna yi ak ndollan yi gi ci des noonu ko yént bi jàngale loolu it da ngeen ko gis ci téere bi sëriñ bi jàngale ko ci njàngale njàngale mu leer a leer téere bi nag comme ci téere ginnaaw géej gi na danañu gis it niñ ko xamee daaneelukaay yu way yeeg ak ak ak lenn nit yi nga xam ne dañ ci seetlu may yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa suñu borom may nag ko ak niveau bi nga xam ne tolloon na ci bi muy taalif téere bi ak njariñ yi nga xam ne da koy yéene ci ku muy jàngal toujours danay faral di feeñ ci daan daaneelukaayu wax yi kon ñu tàmbali ñu dugg ci te ci ci ci ci euh, imaan bi nga xam ne moom la njëkkal kon xaaji diine yi ñett la mooy ban ak ban iman ak islam ak ihsaan ba ci njëkk nag muy imaan moom la ñu bëgg a ñëw fii la ca tàmbalee ne imaanukum seenu gëm eh, yaa ayyuha siqaaru ye ndaw ñi bi man ca ka nga xam ne laxoo ñel na ko asiqaaru ndaw ña wala kibaaru ak mag ña antomino mooy ngeen gëm billaahi ci yàlla wal malaaykati ak malaayka yi wa kutbi ak téere yi haadi yi saalikin aji ginne ji aji soobu ju góor yi wa jigéen ñi wa yawmi ak ba di mujj wa rusuli ak yonente al kiram yi dafay tedd wal xadri ak dogal ba alladi dogal ba nga xam ne yëjoot na tabayel bil maraami ci càkkuteef loolu mooy li mu leen waxoon léegi ca ñu seetlu ko ci ay waxinam ci ginnaaw géej gi mu ne ba ci njëkk kon mooy imaan am na juróom-benn xaaj imaan am na juróom xaaj ci yow mi ànd ak man ci njàng mi juróom-benn xaaj yi mooy ban ak ban ba ci njëkk nee na mooy antomino billaahi mooy mooy mooy mooy gëm yàlla ñaareel ba ci ni mu ko toftalee ci téere bi mooy gëm malaayika yi ñetteel bi ci ni ko toftalee ci téere bi mooy gëm téere yi téere yi nga xam ne doon na ko wàcc ci moom it jëruñu ñu koy détaillé ndax dana ko détaillé ci biir ñetteel ba ñeenteel ba mooy ñu gëm bis yowmal xiyaam bis bu mujj ba ci ni mu ko toftalee ci téere bi nag laa wax juróomeel ba mooy ñu gëm yonente yi nga xam ne ci ñoom la yàlla doon wàccee ci ñoom téere yi ñu nga ci war a xam seen i tur da nga ko gis ci beneen téere bokkut ak bii mu ñaar fukk juróom yi nga xam ne seen i tur ñëw na ci alxuraan ak yu ni mel waaye eh, dañ koy waxee rek ci néew kii jàngi téere bi juróom benneel ba mooy gëm dogal bi waaw eh, gëm dogalub sa borom eh, ci waxtu mu andee dara ak nu mu ko indee rek moo xam aw niru na lu neex ci yow wala niru na lu neexut ci yow di ab safaan lu xaw a naqari loolu it nga mën koo gëm kon juróom-benn xaaj yooyu mooy juróom-benn xaaji imaan juróom-benn xaaji imaan mooy ban ak ban mooy gëm yàlla ak gëm malaayika yi ak gëm yonente yi gëm téere yi ak gëm yomal xiyaam ak gëm dogal ba juróom-benn xaaj yooyu ba ci njëkk nag muy gëm yàlla ci lay njëkk ñëw daal koy leeral doog caa gëm doog caa teg yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo ci teg léegi nag ci niñ ko xamee nag ci tawhidul asar yi toujours bu ñuy jàngale yu mel noonu dañ cey jiital li ñuy tuddee waajib ak jaayis ak mustahin maanaam gëm yàlla dañ ciy xaaj ay xaaj yoo xam ne yii da war a gëm ne lu war la yii nga gëm ne eh, lu jomb la yii nga gëm ne eh, daal lu jaadu la rek ci yàlla lu jaadu la yàlla loolu nag mën naa am téere bi maayul xudus moo ci gën a leeral ndax bii duñ ci bëgg a gën a dugg ci ay détails yoo xam ne dañ fàttaloo kiy jàng ni mu war a dégge waaye danañ ci ñëw suñu kéemtalaay kàttan ci leeralu ki tolloog niveau bi mu ne imaanukum seenu gëm nag bi rabbi bi ci seen boroom tas diixu moo di dëggal benn xu na ko moom wujjóodoo wujjóodoo ak amam xaqiiqu nu dëgg la muy bi ci njëkk ñaareel ba mu gëmin ne euh, maanaam xaaj bi njëkk muy sifa nafsiya boobu ñaareel mu gëmin ne waxu moom xaddimun a jiitu la maa lahu di ko ñeel bi daay ab taamalikaay wasoo baqaayin boromuk des la maa lahu di du ko ñeel nihaay ab yemukaay wasoo xilaafin boromuk wuute la lil bariyati ñeel mbindeef yi maan boole la bi nafsi ci boppam daan ne jamaa boole na lii ñeel ma loolu moom sëriñ bi moo ko wax day sant yàlla ci mbooleem luy aw yiw ak mbooleem luy martaba woo xam ne nit ku baax mas na koo am mu ne yàlla dajalee na ma martaba yooyu yëpp daan ma koy jox daan kon bi njëkk ci imaan mooy e, ñu gëm yi nga xam ne daa war ci suñu borom yooyu nag ba ci njëkk mooy li ñu tuddee sifa nafsiya bi ci njëkk nga xam ne day dafa ci jëmbi saa borom bi mooy daal di gëm ne yàlla lu am la d'abord loolu nag ci xel mu xel mu xaw a woyof rek dañuy faral di wax ne ci wàllu ñi ñi ñi ñi ñiy jàngale ci wàllu xel dañuy wax ne lépp loo gis mu bari ay làkk yu bari di ko wax yu bokkul nañ koy waxee rek loolu day tekki ne lu am ca ak amam amatut naatam li amatu ko ci loolu nag ci yàlla leer na ci ndax yàlla moom ñëpp gëm nañ ne am na ñëpp amul wuute amu ci ñenn ñi dañoo gëm ne aw nag la ñeneen ñi daal di gëm ne ay sawara la sawara la ñeneen ñi daal di gëm ne laneen la ba ni ba ni ñi war a gëm ne ni mu war a gëmee muy julli ñi daal gëm ne eh, qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad la ci njëkk nag mooy kon nga daal gëm ne am la ca amuk suñ borom goog yi nga di gëm ne lu dëggu la lu wér la ci ay firnde ci ni ko Sëriñ Tuubaa waxee ci njëlbeenu Jawhar Nafis ki nga xam ne dafa gëm yàlla ca am ay firnde moom toujours mooy kawe ki nga xam ne dafa gëm yàlla ci amul ay firnde ci nam ko amee léegi nag firnde yooyu dana la ko andil da ci gis lu ndaw mën naa am ci yi waaye nag euh, al adillatu wal burhaan da nga ko gis ci beneen boo xam ne ci programme bi danañ ci àgg ci ni mu koy leeral muy waaye waaye bu xuddoos mooy sifa nafsiya bi mu tegaat ci bi yooyu weeso weetoo weesoo si li ñu tuddee fa salbiya yoo xam ne dafa mel ne ni nga koy saxalee da ngay dàq pour pour mu mën a ñëw mooy dangay dindi dara pour man ne lii am na waaw ah, loolu loolu nag mu jiital ci wuute gi nga xam ne ko wuuteeg daa mu wutal ci mu jiital ci ne suñ borom euh, daa jiitu lépp maanaam ku fi jiitu lépp la amul amul fu mu tàmbalee daa ciy tegin ne suñ borom kon comme moo fi jiitu lépp amul fu mu tàmbalee bu lépp demee ba jeex moo fi des amul fu mu yem moom mooy kii donn asamaan ak eh, yooyu yëpp buñ demee ba jógee fi mooy mooy mooy kii loolu lépp ñetteel ba it moo ci tegaat ne ku wuuteeg mbindeef yëpp la ku wuuteeg lépp loo xam ne bind na ko la eh, ñeenteel ba it ci sifa salbiye yi moo ci tegaat ne ku doylu la ci boppam juróomeel bi moo ki tegaat daane kenn la maa in la ko déddu ko ñeen min saanin ci bu mu ci ñaareel wala mu yesal dañut moom saa borom mi nga xam ne jala màgg na xasima saani di aji màgg ci mbir bi saati ci jëmmam ja ah, jëmmu jëmm jëmmu ja yàlla ca moom nag wala si ak melo bil fii ak ci jëfam ja maxaa mboole seen daane tafarada wéet na daal alfardu kenn kooku aji wéet yooyu suñ borom alladi saa borom moom nga xam ne xamaa not na lii ñeel ma mooy notal na ma samay noonu rek ndax boobu wax naa ne sëñ bi jugee na ci géej gi mbooleem noonu yi nga xam ne doon nañ ko fexeel euh, su suñu borom dimbali na ko ci moom bam not leen mm, ba dem ba dellu siwaat ci jàmm ak salaam euh, kon juróom yooyu mooy juróom yi ci toppaat ginnaaw bu njëkk ba di di di di di di sifa bi yi ci toppaat muy sifa salbiya mooy juróom yooyu ñu doon lim mooy xadimun maa lahu bidaaya ñaareel bi di soo baqaayun maa lahu nihaaya ñetteel bi soo xilaaf bari bariya ñeenteel ba di soo xinan bi si nafsihi juróomeel ba di waaxid mu ne waaxid kenn ki nag mooy jëmmi suñ borom ja yelle ca moom kenn la ca amul benn jëm buñ ko mën a euh, buñ ko buñ ko mën a melale laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ay melo yi suñ borom ay melo yoo xam ne mëneesu ko natt ci la neen luñ koy melale ba tey ay jëfam ay jëfam la yoo xam ne moom rek mooy mooy ki ko mën a jëf niñ koy xamee ci xeeti jëfam yi nga xam ne yépp la ci gën a suufi ba la ci gën a kawe loolu loolu maa in lahu de di ko ñeel fi saati ci jëmmam ja wala si ak melo wa fi afaali ci ak ca jëfam ja den mu ko cee a ñeel mukk saani ñaareel waaye yàlla moom amul kenn koo xam ne mën na koo ñaareel ci yooyu moo tax weesta fii danay tànn nit man saa ku ko sopp lu ko neex mooy la muy def man amruhu isa arada sayan an yaqul lahu kun fayakun li naan maa xabla al faa'i fa huwa al xaaliq wa maa ba'da al faa'i fa huwa al li jiitu faa googu mooy yàlla ak la aju ca moom la topp ci yaa ya nag fa yakunu maxluuqan lay doon lu ko topp lu ko soob lay lay def ci loolu mooy lay yam ñu tegaat ci mu tegaat ci yeneen juróom-ñaari melo yi nga xam ne moo njëkk ñu koy tuddee al maani ci yeneen téere yi da ngeen ko ci gis ci nu gën nañ ko ci yaatu li nu gën a yaatu waaye fii des ko ci waxee ci nu gën a tënku muy wa xudratun kàttan mu ne nag maxa iradat ànd ak namel gi nga xam ne loxo ñeen na ko wajabataa ñaar yooyu war nañ ci war na ci saa borom mu ne eh, ba tey bokk na ci melo yi nga xam ne melo yi nga xam daa ci suñu borom xudra ak irada mu ne yow mi jàng nag ihbudanhu rikk waaye na koy jaamu moom sa borom wala tujillahoo te rikk it na nga koy màggal moom moom sa borom loolu yaakaar naa mot mot li wax la yoo xam ne am na solo lool li màggam gu rëy googu ñëpp xam ak li mu wax ne bindu doomu aadama ak ak nit illa li ni lu dul ñu jaamu ma ndax dañuy wax ne ci wàllu ibaadaat yi suñ borom dafa bindal doomu aadama lépp lu dul moom da koo bindal doomu aadama huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi jamia dafa am istixraaqiya lépp lu nekk ci kaw suuf rek da ko bind ngir doomu aadama moom loolee man koy jëfandikoo bi mu ko ko bindalee sax mu tàgg mu tàggatal ko ko wa saqara lakum ma fi samawati wa ma tàggatal la mbooleem lu nekk ci kaw suuf ak mboolem lu nekk ci kaw asamaane juróom-ñaar yi mu tàggatal la ko li ngay ci xamul noo koy jëfandikoo mu wut ci nit ñi ñoo xam ne mën naa communiquer ak moom ñu muy ay yonante di wax ak ñoom ñooñu di wax ak ñun eh, waaye nag ci wàllu jaamu yàlla nag moom illa li yabudun maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yut'imoon ci wàllu jaamu yàlla nag moom mënooy jaamu kenn ku dul man ci ni ko yàlla bëgge moo tax ngay jàng téere bi ngir mën a xam nan la yàlla bëgg ñu koy jaamu nga koy defee noonu da ko gis ci julli ak ak génne asaka ak woor ak aj màkk euh, ilmun xam xayaatun dund maxa samin ànd ak dégg wa basarin ak gis maxa kalaam ànd ak wax wajabat mu ne yii war na li sil basar ñeel borom bindee fi kon juróom-ñaari melo yi ci toppaat mooy yii ñuy tudde maani mooy ilmun ilm mooy xudra ak iraada ak ak xudra mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy iraada ñetteel bi mooy ilmu ñeenteel bi mooy ayaat juróomeel bi mooy samu juróom-benneel bi moom mooy basar juróom-ñaareel bi moom mooy kalaam yooyu ci nit ku mat rek faaw yu mel noonu man manu ci moom day daal di nekk lu am solo ci doomu aadama ngir mu bañ a nekk handicapé euh, maanaam am doole ju mën a dogale am bëgg-bëgg boo xam ne lii am mooy ki mooy ki bëgg loola ngir loola daal di mën a am ba tey euh, daa di am am am am ak euh, nekk kuy dund nekk koo xam ne kuy dégg nga nekk ak gis nekk ci moom it naka noonu ay waxit nekk ci moom yooyu nag ginaaw bi mu nekkee ci moom ba pare nag sifatul maanawiya da doog a ñëw ci ki mu nekk juróom-ñaar yooyu ci kii mu nekk mooy kii war a nekk juróom-ñaar yi ñu ciy bëgg a tegaat moo tax mu ne juróom-ñaari melo yooyu juróom-ñaari melo la yoo xam ne war ci suñu borom la daal ci tegaat ne nag daal ne wa kawnu naa nekk saa borom it taxaala saa borom yi aji kawe xaadirin di aji am kàttan man wala di aji dogal xayra muridin di ngën ji aji nammeel laaye saalu yàlla bu mu dañ saakira di aji sant waaliman di aji xam xayan di aji dund samihan di aji dégg wa haba may na wa kunu aku nekk tamit xayra basiri ni nga ñu aji gis wajaba yooyu war na wa mutu kaliman di aji wax moom suñu borom it xadaaka yàlla na la gindi allahu yàlla biyum ni laa ilaha illa ci barkeb laa ilaha illa mu ne noonu suñu borom euh, euh, ginnaaw bi nga xam ne juróomi ñaari melo yooyu dafa nekk ci moom kon day mujj nekk lii ca na na mu yelle ci moom maanaam suñu boroom ku am doole ju muy kàttan gu muy dogale la suñ boroom ku am ak ak la ci li muy dogal waaw man lii muy dogal da koo bëggee noona muy muy demee noonu noonu mu ko bëggee waaw moom suñ boroom eh, eh, ku xam aji xam la xam-xam bi ginnaaw bi nekkee ci moom comme moom aji xam lay doon suñ boroom aji dund la dund boo xam ne amul relation ak yeneen yi ci des bokk ak dund doomu aadama xam bu demee ci waaye bu ko da nga gis relation yi ñu koy jox bu dee ci dund bi yàlla nag amul fenn fu muy aju ndax day wéy ba faw suñ borom it aji dégg la ci dégg ga yell ci moom pas rek dañ naan aji dégg la ci déggukaay boo xam ne day tekki ab nopp ci moom déedéet moom ci déggukaay waaye nag ba yell ci moom suñ borom aji gis la waaye nag ca gisukaay ba nga xam ne bu yell ci moom juróom-ñaari melo yooyu war ci moom kon ñu ñu tey ñi ngi yemandi ci leçon bu njëkk bi ci eh, ginnaaw bi ñu jàngee ne eh, eh, islaam ñetti xaaj la xamoon nañ ne ba ci njëkk muy imaan juróom benn xaaj la juróom benn xaaj yooyu ñëw ñëw nañ ci mooy imaanu billaahi ci ni mu ko toftalee ak imaanu bil malaayikati ak imaanu bil kutubi imaanu bil rusuli imaan bi yawmil aaxiri ak imaanu bil xadari ginnaaw loolu nag ñu daal di ñëw ci al imaanu billaahi mu am ñetti xaaj ba tey waajib jaayis mustahil tey ñëwoon nañ ci waajib yi rek mooy yii nga xam ne dafa war nga gëm ko ci sa borom ëllëg dana ñëwaat ci beneen leçon boo xam ne danañ àggale yooyu gën koo leeral Euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di bu baax ne toujours mën ngeen ko teewlu ci le 3 bu nekk ak le 17 bu nekk ci weer bu nekk euh, baax na jaa ngeen jëf ba beneen yoon waj'al binaaya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi